nee nañu sietan ajjuma bi wees manifestation amoon na sa daaru xudduus meeting bu ñu aaye woon euh, yëngu-yëngal am fa yëngal gësam am fa yàqu-yàqu am fa manifestation yooyee sa Touba nee nañu lu mu gàtt gàtt juróom benn fukk ak juróom maanaam soixante-quinze euh, ci ay doomu aadama yi nga xam ne ni teg nañu leen loxote soo moytuwul caabi dana leen féete ginnaaw mm. yéen kaay groupe des médias mooy wax te nee na nag lay xeeñ ci Serigne Assane Mbacké mi ak i ñoñam mm. neexul benn yoon seen ëllëg neexul benn yoon yéenekaay bi moom mooy dànxaafu ba tey euh, yéenekaay groupe euh, des médias la sa des dinañ ci ñëw ndax faw ñu topp rek li nga xam ne. mais fii mooy entrée Touba ci illustration bi. fii la entrée Touba waaw euh, dugub Touba ngi nii. ci ci buntu ba. jamono joojee de jàppale ne kon. Euh, comme nous woté won sen euh, euh, manifestation ñom le témoin Nous tu ñew ci témoin amna ci yene kaay nga xamné daal dina ci dik muy réew quotidien réew quotidien comme ta tribune donné 65 lañu tek loxo té Serigne Assane Mbacke nak la kay la xéñ neexul ben yoon réew quotidien nak dëgg nak ndax amna ci ñoo xamné ni ñent ci si Ousmane Sonko ñu tek loxo ñent ñoo xamné ni bo dinañ teud juroom ben en tout cas moom la ñuy sàkku ñu tëj leen ko yéen kaay bi daal dina ci euh, euh, dikk arrestation yu bari yi nga xam ne nemmeeku nañ ko euh, ci waa Pastef fii nag nee nañu nag fii ñu nekk ni sagar bu ngay xeeñ yéen kaay bi moom moo ci dikk libération di ko dëggal ba tey information ba nga xam ne moom la tribune yéen kaay daal di joxe tribune yéen kaay dina 65 libération nekk dëgg la cinq yooyu da jàppale ne si am na si ñeent ñu nga xam ne ay lañu élèves yoo xam ne dem leen jàngi ji

waaw jàpp mu sakkan bi <laughs> waaw jàpp mi jàpp mu sakkan moomee Guy Marius Sagna seen i ñoom ñeneen duñu bàyyi mu sedd plan d'action la teg fës ne ne jàkkaarloo ñoom ndax mbir yi dafay bëgg a yomb bu hmm? samay bi ñoom ñoo ko xam leen ah kay ñoom ñoo wax de ñoom ñoo wax comme te waa Pastef ñooy jàmbat fu mu nekk ni Sud Quotidien nee nañ jàmbatu waa Pastef dafa mujjee gudd hmm. boolu jàmbat lu fees dell la yoon boolu jàmbat bi ñu enu dafa fees dell te nag comme def nañ du ne nee nañu fi mu nekk di seen boolu jàmbat dañu koy yebbi ci kanamu société civile bi di leen xamal ne yéen a xippi seen i gën di xool te gis ngeen lu ñuy dund ci réew mi ay manifestation yu nga xam ne ni dañu koy tere ay militants yu nga xam ne ni boo génnee ñu jàpp la nee nañ yéen société civile bi yéen a xippi seen i gën teg ko ci kon ëllëg lu am xam ne ne ñun duñ ci leen waaja la ak ni ñuy seppee ci réseaux sociaux yi nee na lu am waxoon nañu ko te nee nañ du kenn ku dul waaja waaja nekk ci palais ba nee nañ di ak di bañ ku ku teen ñoom ñooy wax ba tey l'indépendant da yéen kaay daal di si ñëw nee na kii nga xam ne rek mooy waa PASTEF ñoom waa PASTEF Ousmane Sonko seen i ñoom ñenn ñu nag fu nekk nii droit de l'hommiste yi la ñu dem ba si ñoom génn seen liste si jàmbat wala seen boolu jàmbat yebbi ko seen kanam ne leen lii mooy suñu problème ak nguur gi fi nekk nii maanaam.

te ñoom bu ñu bëggee manifester manifester kenn du ci man dara ay signal yu nga xam ne dañu koy coupé nee na Walf moo mujjee ñun seen TV dañ ñoo coupé coupé bañ bañ miin coupé. waaw bu dee euh, euh, diffusé sur réseaux sociaux yi ñoom ñoo ñun ñoo sa jiitu dañ ñoo coupé coupé ba kenn xamul lu mu nee na ay tentative d'élimination ay candidats pour 2024 ay candidats yu nga xam ne nii taxaw nañu mu wóor na ñi bu ñu demee am dara fu mu nekk di leen di faagaagal di leen tegal ay ndëgg sërëx nee na réew mi fii la toll. ñu may bëral maa leen di tànn. waaw. <laughs> Bougane Gueye Dany nee na fii la réew mi toll ku ci waxul tey nag di ëllëg lu am yow. Bougane Gueye ni mooy dànxaafu de. ah sélection et non waaw sélection maanaam sélectionné. Mhm. ñi nga war a jàkkaarloo say adversaire mhm. sélectionné say mbër. yéen bi bi euh, Bougane Gueye Dany moom moo ko wax ci li nga xam ne moom mooy indépendant kuréel gi ëmb imaam yeex prédicateur yu Sénégal nee nañu ko Gueye Dany maam góor wax nga dëgg nag Bougane wax nga dëgg fii réew mi toll faw ñu waxtaane ko. te ki wara a ci si waxtaan wa nag du kenn ku du njiitu réew de président Macky Sall nee nañ nag wax fa dëgg ñu koy wolu mu ñew tok ñu waxtaan waxtaane réew mi ndax réew mi nag wax fa deug neex yalla dañu ko wara a péncoo te bañ ko patio te nee li di xéñ ni neexul ben yoon kon nak dañu ko waxtaane le mandat ci loolu la dikk suspension signal Walf interdiction manifestation le coup de gueule de Bougane Gueye fofu foofu la dikk dikk également ci diggante ki di euh, Idrissa Seck Euh, Ndamal Kajoor ak ki nga xam ne moo di président Macky Sall diggante bi daal dafa mel ni ay ay ay naxaate am na ci biir ñoom ñaar daal am na kuy nax morom ma yéenekaay bi daal na koy euh, euh, daal na ciy dikk l'évidence gën na caa ñëw nee na ça sent la trahison entre Idi et Macky ñoom ñaar seen photo la andi di l'évidence nee na ñaar ñi am na kuy nax moroomam de buñ ko waxee buñ ko waxulit ñaan ñi am na kuy nax moroomam le témoin nii waa Pastef ñoom nee nañu kenn naxu leen fii réew mi toll nii wax fa dëgg jafe-jafe ñu jànkonteel askan wi yëpp gis nañu ko ñoom waa Pastef nee nañu nag seen jàmbat wax nañ ko société civile ndax régime bi daf leen di agressé nee na mënuñoo génn fenn te régime bi agressé wu leen. agré xam nga baat agressé sax moom moo gën a kii parce que ñoom baat <laughs> nee na fu mu nekk réew mi daf nguur gi daf leen teg bët piisu leen dana leen jàkk ba pare. di defanteex ñoom te loolu nag nee na ñëpp gis nañ ko seen liste jàmbat la ñu jël teg ko ci table yi jamono joojee foofee nga xam ne moo di sa Ziguinchor Doudou Ka di leen xamal ne euh, fii réew mi toll Ziguinchor neexul ba neex mais ñoom seen titre foncier la. ah moom Doudou Ka nee na Ziguinchor titre foncier la. ndax woote na fa meeting meeting boo xam ne nee na mbooloo mi foo ko nattu wees na foo sànni mbàtt mu tàkk na mu taxaw fëgg da dëm moom lan la gañ si meeting bi laay wax man xamula mu gañ si nee na moom nee na titre foncier la moom Doudou Ka nee na affluence bi mu am ci meeting du ma daa ngi wax de affluence bi mu bu mu am ci meeting boobee nee na daanaka kenn ma su ko am sa Ziguinchor bilaay walaay bu fëgg da dëm daal di taxaw dëgg la nee na neexul ba neex Ziguinchor man la ñu bëgg. waaw Ziguinchor sama titre foncier la. Ziguinchor man ak yéen ba foofu dañoo bëggante Saint-Valentin. et puis boobu sa nee na nag Doudou Ka dama leen bàyyi ngeen wax. non non non parce que Doudou Ka. Doudou Ka nee na nag. non non man bàyyi 2024 gii. waaw Macky Sall comme que man ngeen bëgg.

non, mais la démonstration, mais la démonstration de force en politique, mais attends. Ah oui, c'est le. Ziguinchor, c'est le petit foncier de Bilouka. Oui. Mo Fofana non dama ne Ziguinchor c'est le petit foncier de Doudouka. oui oui mais le nee na bëggante la. digganteem ak waa jigéen soor bëggante la. waa léegi lu tax te weeru Saint-Valentin comme dañoo bëggante. mais nag

waaw lettre bu gudd. très beau titre. ay jafe-jafe yu dum diex lañ dajale ci lettre bi bu Mariama Ba mais bi nak une si longue lettre bu Pastef la jox nañ ko société civile bi jamono jooju gi mari Sagna nee na dëkkab dóore fa yoo koy tas mm. dinañ jàkkaarloo lu fi ne taxawal nañ sunu plan d' action ñu jeexaleex Odia ana Odia mais ce kanam Odia nag fi mu génne tay dafa am solo waaw ndax fii réew mi toll waa AFP dafa yëngu te lëngu lu lëngu lu nekk lu ko yëngal ak la ko yëngal ak doole. te muy dëgg. te li yëngal mm. du kenn ku dul. Ah. Alioune Sarr.